nuyu naa leen ziar naa leen màggal naa leen e, woote bi tey di nekk waxtaan waa axlu làmb e, li ñu dajale fii doon xew-xew yu am tout récemment concernant nouveau CNG bi ñun waa lutte simple section lutte simple ñu amoon ci lenn loo xamante ne bokkoon na ci liñ doon naqarlu muy euh, le fait ko ministre de sport ci liggéeyam bu rafet ay jaar-jaaram ba ñu yëg si fii mu nekk ci consultation mu nawoo waa nit ñu mun a tuddee ne waa axlu làmb te waa lutte simple gisuñ suñ bopp rawatina li tax mu gën ñoo naqari tout récemment am na benn lettre de doléance bu ñu bind suivi demande d'audience adressé ko au ministre des sports amuñ ci tontu lu ñu dem comment dirais ñu dem ba tollu moment yi à notre grande surprise ministre bi mun na nekk ci consultation lu feetoo ci CNG bu bees bi te gisuñ ci suñu bopp maanaam kenn wowuñu ci bu ma nee kenn woowuñ ci nag waxuma ci turu Abdoulaye Diop damay wax ci turu ñuy dund lutte simple muy amateur di mbër di promoteur yi wax dëgg yàlla loolu nekk na loo xamante ne naqari nañu trop sax naqari nañu trop loolu moo waral suñu teewaay fii tey di rafetlu aussi teewaayu journaliste yi yen tamit wax dëgg yàlla ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm lii daal. bokk na ci li tax ñu dagg suñu activité yëpp ñoo toogee fii boo gisee ni ñu toogee nii am na ci sax ñoo xamante ne toni de travail lañ fi wàccee pour mun a firne rek ne jot bi bayewu ko mais xew-xew bi toll nañu foo xamante ne amatuñu leen luñ ciy wàcc lii nag doon na foo xamante ne suñu première pas la en buñ jógee ci lii dinañ mun a wax suñu plan B fan lay féetewoo incha allahu rabi ñu ngi leen di jaajëfal di leen gërëm. lutte sans frappe yaakaar naa ne eh, dafa am ay pàcc yu bëri yu nekk biir lutte sans frappe lutte sans frappe am na association des promoteurs Ablaye Diop mii moo ko jiite ñu créer ko bees am nañ association nationale des amateurs de lutte sans frappe du Sénégal man mii maay président bi kon ni ñu ni ñu woowee nit ñi comme ni ñu woowee ay président ñu teew woo ay jeunes amateurs ñu teew ci wàllu làmb ñun ñi ci ñun ñi yor ay association national war nañ ñoo mën a woo ñu teew joxe suñu xalaat comme ni ñoo ñu joxe seen xalaat parce que yéen naatable wu leen ne tey taaru lamb lamb bu am fair play lamb bu fukki mbër dajaloo bokk ci mukaay amul histoire ci lutte sans frappe rek la am te yéen biir na neen ne teraanga bu ñu am Sénégal ci sport ba ñëpp di bàkku lutte sans frappe moo ko andi te lutte sans frappe boobu koy andi mbër mbër yi ciy dem ñëpp daanaka ci lutte sans frappe la ñuy dund. kon avant tout la ma waxoon rek mbaam gàtt na waaye ci jur gi la bokk. am na ay nit yoo xamante ne jot nañ leen a woo ci ginnaaw ñu nekk ay nit ñoo xamante ne dëgg la ci wàllu lutte sans frappe la ñuy yëngatu mais woote boobu nekkul woote wu woote wu dëgg woote boobu pour mettre nit ñi en mal la te nay leer dañoo bugg a jaxase nit ñi. bugg a wax nit ñi ne comme ça ñii li ñuy wax amewul noonu ba ñuy wax ne woowuñu kenn ci lutte sans frappe boobu woowuñu kenn dañoo yeg préparation bi ak lu ñuy wax ñu wóor leen ne lii kenn amul lu mu ci contesté ñuy gaawantu seet ñi nga xamante ne yaakaar nañu nii buñ leen profité woo rek balaa ñoo dina ñu ñëw ba ñu mën a am lu ñu wax parce que am na ñu ñu woo foofu dem ay deux heures woo naa ñoo ñu laaj leen ñu nekk ñoom kenn woowu leen bi ma leen di yegal ne dinañu jëf ci arène ba comme genre daje bu mel nii mais waxtaan bu oyof lay doon kon ñooñu buñ leen wooyee xanaa diggante diggante trois heures ak quatre heures ci ngoon la ñu profité woo loolu ba def ko pour maanaam pour yàq liggéey bii ñuy def na ko waa Sénégal ñëpp xamee noonu gis nga ñun ñi nekk fii ci taabal bi ak ku ñu mën a xeeb ku ñu mën a fonk boo demee ba ci ministère u Matar Ba la ñu xam ci lamb bii ñun amul ku ko xam ci ministère ba ci kaw ba ci suuf te nag gis nga lii bu wéyee du ñu yem ci lii de te ku bugg ñu d'accord ak yow nag bul nit di jéem wax naan da ngay jël intervention di ñu jéem a woo téléphone naan ay bàyyi leen lii bàyyi leen lii du ñu bàyyi ñun am nañu fulla am nañu fayda xaalis warsak la yàlla koy joxe nekk leneen ak leneen ci yàlla mais fulla ak fayda amul ku ko yalla joxul ci àddina boo ko amul rek yaa ko sanni te ñun sanni wuñu suñu bos ñun dañoo dañoo dañoo autonome dañoo dañoo am liberté dañoo libre pour wax te incha allahu dinañu wax wasalaamualeykum wa rahmatullah yàlla ñu yàlla defal ñu jàmm. c'est ici qu'on forme c'est ici qu'a été formé le roi des arènes c'est ici qu'a été formé les champions de la CEDEAO c'est ici qu'a été formé les promoteurs je peux même le dire C'est ici qu'a été formé même des gens qui font d'autres sports tels que le MMA ou d'autres sports. Donc nous croyons qu'aujourd'hui, c'est ici la porte des arènes sénégalaises. Donc ça a été vraiment une surprise pour tout le monde que les acteurs sont consultés sans les amateurs, les acteurs de cette lutte simple, qui détiennent vraiment aujourd'hui, comme je pourrais dire, l'école. Donc, c'est compliqué même d'expliquer de, de, de, au fond c'est quoi le problème. C'est une discrimination, euh, manque de respect. On, on ne peut pas exactement dire c'est quoi le problème. Et comme les gars l'ont dit, hein, il ne fallait pas au dernier moment qu'ils veulent réparer, par exemple, en appelant des gens qui ont des responsabilités qui sont au boulot, tu les appelles pour leur faire venir dar dar. On dirait que vraiment, c'est des, c'est, des gens qui n'ont rien à manger, tu veux leur appeler pour, pour leur donner à manger. quoi. Ça, déjà, c'est un manque de respect. Si on a à convoquer quelqu'un, je crois que vraiment par, par écrit ou bien par téléphone ou bien quoi que ce soit, on peut le convoquer et attendre, par exemple, lui donner au moins 6 heures de temps ou bien pourquoi pas la veille pourquoi ils n'ont pas appelé et attendre au dernier moment pour appeler. Tout ça, nous, nous voyons que vraiment, euh, ce n'est pas ça qui va faire euh, la lutte. Si aujourd'hui, on a à changer un président de CNG, si aujourd'hui, tout le monde pense à des lendemains meilleurs pour cette lutte, nous, nous croyons que tout le monde devrait être dedans. A, B, C jusqu'à Z, tout le monde devrait donner son avis Et puis, euh, le reste, lui, en tant que ministre qui a ses responsabilités, il va trancher. Je vous remercie.